WPAT Patterson and worldwide from New York City at www.wpat930am.com. Listen.
Everybody wants cheap airfare, but where do you find it? You call low cost airlines. Their prices are direct from the airlines, and they're so low you can't find these fares published anywhere. They specialize in cheap flights, discount hotel rooms, cheap car rental rates, and great package deals anywhere around the world. Wherever you want to go, they can help you get there cheaply and with a best price guarantee. If you want the lowest prices on your airline tickets or other travel services, call now. That's right, call. That's the only way to get these rates. Experts are standing by 24 7 to get you the cheapest airfare and hotel rates available. So don't wait. Call right now for the lowest travel prices anywhere and for great last minute travel deals too. Call right now. Operators are standing by. 800 298 5783. 800 298 5783. 800 298 5783. That's 800 298 5783.
This is an important medical alert for anyone suffering from back or knee pain. If your loved one suffers from back or knee pain and have Medicare as your primary insurance, Relief is now a phone call away. You can qualify for a pain relieving back or knee brace at little or no cost to you. Call Nation's Back and Knee Brace Hotline today at 800 690 3015. You'll also receive free delivery. If you have Medicare, you may immediately qualify to receive your back or knee brace at little or no cost. We'll handle all the paperwork, work with Medicare and your doctor on your behalf at no charge to you. Stop living in pain because the brace you need is too costly. We also have braces available for shoulders, ankles, and wrists. You may be eligible to receive these items and more at little or no cost. Call Nation's Back and Knee Brace Hotline right now at 800 690 3015. The call is free and there is no obligation. Don't live with pain anymore. 800 690 3015. 800 690 3015. 800 690 3015.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. On behalf of the staff and management of Multicultural Radio Broadcasting, I'd like to wish the entire Muslim community in the tri state area a happy, safe, and blessed Ramadan. Ramadan Mubarak wa Eid Kareem. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.
bisimilah.
asalaamaaleykum wa rahmatullah.
waaleykum salaam wa rahmatullah.
Serigne Saliou Samb ñu ngi lay nuyu di la ziare.
Alaaji Birima ñu ngi lay delloo nuyu di la ziar bu baax a baax.
di la sant di la gërëm ci barke sëñ Touba Cheikh Saliou Mbacke yal na yàlla guddal sow fan.
allahuma amin sëñ Modou Bousso xam naa ne bu mënee woote waat incha allah dafa dagg ñu ngi jégalu bu baax Alaaji Birima amin jërëjëf.
jërëjëf di sant bu baax jawriñ jooju génn léegi sëñ Modou Bousso.
dëgg la.
kàddu yu rafet yi. xam naa bu ma nee delsi na delsiwaat.
waaw dina delsi incha allah ok.
waaye nag ñu ngi gën a gërëm di gën a gërëm suñu sant suñu suñu sang suñu sëriñ. ñu tàkko Mbakke. laaj sëñ tàkko ñu ngi koy sant di ko gërëm.
dëgg la ci pastef bi. ak bëgg a liggéey sëñ Tuubaa gi nga xam ne nii moo ko jaral ñu ne suba la korite. mu jóge Sénégal ñëw ci réew mi ngir bëgg a liggéeyal borom Touba maamam ji Mbacke Balla Issa yal na yàlla guddal saw fan noo ngi lay sant di la gërëm di la wax ne nag soññ nga ñu waaye soññ nga taalibe yoo xam ne nii ñu bëgg a liggéeyal Serigne Touba lañu ci la ñu juddu moom la ñu xam ba tax ñu gàddaay ñëw ci réewum Amérique rien que. bëgg a sàkku addee joo xam ne nii dañoo liggéeyal Serigne Touba nga ñëw nag yow gën leen a soññ ànd ak sëñ Mountakha mi nga xam ne moo fi Serigne Touba te taxawal liggéeyam Serigne Touba dama ne. Touba ca kanam soxna Mati Diouf wax na ko moom it yal na yàlla guddal aw fanam tur wi am na borom wuyu na ba noppi kon ku bëgg a jëriñu mbaa nga bëgg a dem ca kanam Serigne Saliou ne leen ànd ci liggéeyam Serigne Touba bii muy lan Touba ca kanam. ndokk bi nga xamee ne jëwriñ ji ñu wax Alaaji Modou Gaye mi ngi fi ànd ak sëñ Moustapha Diop Baye Fall ànd ak ñi nga xam ne ñooy wàlla xasaay ànd ak sëñ Cheikh Amar ak président daayira yi ak waa kër maam Alaaji Malick ñëpp ñu ànd bëgg a liggéeyal Serigne Touba dama ne sëñ Saliou sëñ Saliou waaw maa lay dégg bisimilah yaa ngi ci kaw waaw bisimilah.
mu wax na dugguma guddal waaw d'accord.
waaye ku woon mbaru tuddub dëkk te dëgg lu yóbbu Serigne Touba taalibe bu ko fekkee war nga caa sànni sa kaddu ni ko sëñ Modou Fall Baye Fall defee ñoo ngi gërëm magi dëkk bi ñoo ngi gërëm taalibe dëkk bi ñoo ngi gërëm sañ ñëpp bu dimanche ak jàmm góor jigéen mag ak ndaw ak képp ku ko yàlla man loo bu kenn daggoon naa at mi dama ne man day fas naa yéene keroog keroog sant sëriñ Fallu fekk naa sëñ Modou Fall Baye Fall Modou Moustapha Diop mu baax mi yor karne bi mën na ko dagal moom at te fas naa yéene bu ma yeggee dinaa dagaat ay at ndax nit sëñ Tuubaa ku ko fekkee dëgg da la ngay dagg di dagg yi wax waaye doo ne dagg naa am at rek daal di frank laayu déedéet borom Tuubaa li mu am ëpp na loolu dëgg la ku daggal na ma daggaat ku def at defal boo mën ne def fukki at def ko boo mën ne def juróomi at def ko boo mën ne def ñaari at def ko liggéey sëñ Tuubaa bari góob mba- bari góob diw la noo ca duggee noonu nga cay ñeene te ñu denc fii yàlla baaxee leen maa ngi leen ñaan ngir jëmm yàlla yonent bi borom Tuubaa def leen li ngeen di leen yàlla may ngeen liggéey def ko ci liggéey sëñ Tuubaa ku duggee ku def ci liggéey sëñ Tuubaa yàlla yokkala la nga am adduna ak àllaaxira kon daal maa ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp tey ñaan yàlla yéen ba sëñ Tuubaa yàlla may nit kër jàmm su doon ak fekk dina ñëpp ñëw ñu jéem dañ ko daan defe ñu defe ko ni ngir yàlla yéen ci ba jëmm borom Tuubaa maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey ñaan yàlla su doon ak su ñëw ñu waaye man rek man koy ndaale ci ñuuru koor yi ñu jëmm yàlla yéen ci sëñ Tuubaa jërëjëf sëñ Saliou Sam jërëjëf kooku mooy Serigne Birima Mbuub taalibe Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké ñu ngi lay siyaar bu baax te kàddu yi rafet yi ndax wax dëgg yàlla lu baax lu ne yaa ngi ca kon kooku mooy Serigne Birima Mbuub ñu ngi koy jox wàcc waayam te di ko siyaar bu baax a baax bisimilah Mouride bisimilah.
salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Ousmane waaw ñu ngi jégalu de yoon wee fees dell rek
sëñ Ba daal moo woon ci bëgg dama nag nag.
mënta ñàkk yaa ngi ci kaw mënta ñàkk bisimilah.
voilà. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
waaleykum salaam wa rahmatulah.
di jullit yi bokk taalibe yi seen taalibe Ousmane Fall mu leen di nuyu fii ci New York. di ziar nag bu baax a baax a baax. suñu kilifa gu tedd bi nga xamante ni moo ñëw ci dëkk bi di ak sëñ Alhaji Pape Mbacké. te jëm fa ci liggéey bu rëy bi nga xam ne mooy liggéey Sëriñ Tuubaa bi di Tuubaa ca kanam ñu jot nañ digal ci Sëriñ Masey di jëwriñ mu soññoon rek nee nañu dugg si ci rajo bi tey yónnee ay kàddu yi soññee ci liggéey bi liggéey bi nag nekk liggéey boo xam ne defe naa ni New York moom macha allah defe naa ni ñoom kenn demoo ñu def kon ñoo ngi soññ daal suñu bokki jullit yëpp soññu bokki taalibe yëpp rek di wax ne daal li ñuy yéene ci liggéey sëñ Tuubaa yàlla na ko suñu borom yàlla defal ñun ñëpp rek ñuy wax nag ni kenn ku nekk rek ci ñun waa New York nañu fas yéene bu ñuy ñëw rek te barab ba poche yi moom na di dan ak dollar waaye nag nañu fas yéene bu ñuy dellee dina poche wes toy rek kon Serigne Saliou Samb yow ku ne xam na la ci liggéey sëñ Tuubaa xam na la ci fondation ak jàmbaar kon noo ngi lay soññ bu baax a baax ci liggéey boobu di soññ suñu bopp di soññ bokk taalib yëpp bokk jullit yëpp rek xam naa dina bañ a guddal dañoo amoon ndigal rek ci sëñ Masay Ndir mënoon nañ dugg si daal soññee ci liggéey bi waaye nag wax dëgg yàlla li ñu yéenee wax ak li ñu xalaat ëpp na lii kon nag dañuy déglu bu baax a baax ndax li ñu def fa xaw a fees te itam liggéey bi noonu la doxee asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ah jërëjëf Serigne Ousmane Fall kenn ku ci nekk xam la ca Touba ca kanam te yaakaar naa Serigne Ousmane xam nga ne yow ki sa jëmmi bopp de wax dëgg yàlla Touba nga jógee te am na loo xam ne Serigne nii teg nga ca sa bët kooku mooy Serigne Ousmane Fall waa kër Serigne man Dumbe nee na soññ na leen yéen ñëpp incha allahu rabbi yàlla yàlla yóbbu ca bis ba kon mbokki julli yi mbokki taalibe yi bisimilah.
salaamaaleykum Serigne Saliou Samb am na daal bëgg Serigne Touba di ko am liggéey dëri jàll bëgg Serigne Touba te di ko liggéeyal Serigne am di ñu ngi lay siyaar ndax émission bi buy dox ba egsi fii te mënuñoo taxawit Serigne am dëri jàll mii ci la bokk Serigne am di ñu ngi lay Waaw.
ñaanal yàlla te xam ne bëgg Serigne Touba googu di ko liggéeyal aw tur la waaye jëf ji daal dugg ci biir Serigne am di bisimilah.
salaamaaleykum mbokki jullit mbokki taalibe yi am dëri daal bëgg Serigne Touba di ko liggéeyal maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di nuyu sëñ Ousmane moomu génn sànq di siyaare sëñ Tàkko Falilu mi nga xam ne moo ñëw ngir bés bi ci Touba ci kanam jërëjëf maa ngi siyaare ñëpp di nuyu ñëpp maa ngi dëgg dëgg di woote nag ci bis boo xam ne nii bis bu jara woote la dégg naa sëñ Saliou nga ne ligne bi dafa fees waaye woote bii nga woote sa rajo bii nga ubbi ngir Serigne Touba. ak liggéeyal Serigne Touba nii rek la mën a demee Serigne Saliou. kon ñu ngi wootaale ba yëpp. defe naa ne yoon fi mu ne nii moom dana xat lool ndax bis bii moom. dafa jar a fekkee.
da koo jar nag.
ndax ngëneel la te it liggéeyal Serigne Touba la te lépp lu ci waaye sàkku wala nga fas ko ci bu soobee Serigne Touba yàlla na la fekk defal.
dëgg la kon bis baa ngoogu. ñu di ko woote ca cent vingt cinq cent vingt six ca Fifth Avenue di dimanche le neuf juin kon ñu ngi ci woowu taalibe bi yëpp ndax buñ ne lu ñuy woote ñu ne liggéeyal Serigne Touba ca dëkkam bu tedd ba sellal ko nga xam ne Serigne Touba fu mas a toog mi ngi woote ci dëkkam bi di ci wax loo xam ne ni kenn ku nekk war nga cee bàyyi xel bokk ci ñooñu ko war a defal kon ñu ngi ci woo bépp taalibe bi di ñaan yàlla képp koo xam ne feeñ nga ci yàlla boo nëbbuute ci barke Serigne Touba macha allah waaw maanaam Déré Diall daal maa ngi woo sama bokk ci kër Seigneur Diall yi nga xam ne noo bokk Seigneur Diall yëpp ci bés bi ne leen bu leen ci kenn jiitu ndax Seigneur Diall kenn mësu koo jiitu ci liggéeyal Serigne Touba kon nag maa ngi ci woo képp koo xam ne bëgg ngaa liggéeyal Serigne Touba ci bokki teelu bi yëpp rawatina noonu waa kër Sëñ Rijaal nag maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn kon am dee ngoog ci liggéey Serigne Touba bi di ci woote di ci soññi jëwriñ yëpp kenn ku ne na ci taxaw ba def ci loo munut te boo ko defee Serigne Touba dina la defal loo lu la jomb kon maa ngi woote di sant mboolem tool bi di balu ñëpp ak ak bal ñëpp ak di leen séentu bés ba di ñaan yàlla ñëpp fekkee ko jàmm ci barke xaarim ba kon sëñ Saliou ñu ngi lay sant bu baax di la jërëjëfal ci liggéey bu rafet bii nga taxaw ak ñi nga ko taxawee waaye nii rek la mën a mel ndax sëñ Saliou Samb ubbi na rajo rajo ba may woote la mu see woote liggéeyal Serigne Touba jàpp naa ne liggéey bu moom dana dana jekk dana rafet tey bu soobee yàlla def na ko def ni nga ko bëggee kon sëñ Saliou ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na si yàlla yóbboo jàmm jërëjëf sëriñ Amdari Diall ñu ngi lay siyaar bu baax a baax kooku mooy sëriñ Amdari Diall bëgg sëriñ Touba te di ko liggéeyal kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yaakaar naa kenn ku ci nekk xam na ni lii nga xamee seen nii day wax dëgg yàlla moom lañ jublu te nit ñi yàkkamte ko lool nga dégg ñi ci état yi ñu ngi woote te kenn nelawut kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bise ngi nii ba xam ku ci feeñ dootoon na booba mukk ñu demaat ci fas day seexul xam ne ba ci kanam bisimilah.
الإسلام دي جوية كان بجين زادا تسوى جنت في من الأمام بسم الله
salaamaaleykum sëñ Saliou waaleykum salaam wa rahmatulah bisimilah.
Diop la maire depuis Atlanta ah Diop la maire ñu ngi lay siyaar yow Diop la maire yaa ngi ci liste bi. ñu ngi sëñ lay jox sa Saliou Samb wàccuwaay léegi la soxna naati woote nee na waa Touba Atlanta kenn nelawut ñuy waajal bis bu tedd bii nga xamee seen benn bis la ci bis yi kon Diop la maire yaakaar naa yoon waa ngoo kenn du wax fii nga jaar ndax foo miin la bisimilah.
sëñ Saliou xanaa ginnaaw bu ñu leen santee bu baax a baax a baax a baax ci liggéey bu màgg bi ngeen yëkkati dëgg la.
di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di leen ziyaare di baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mi nga xam ni mooy jégal yàlla nañu boole jégal ñun ñëpp ah yàlla may ñu wér ñu fekkee ko kenn bañ a manqué fekk ko déwén waaye sëñ Saliou fa fa nga fi nga taxawee ci Touba ca kanam man dama naan Touba ca kaw ca kanam macha allah jërëjëf.
ndax Touba ca kaw ca kanam Touba dara waru ko féete kaw buñ ne Touba ca kanam tamit Touba dara waru ko féete kanam dëgg la.
liggéey bu màgg bii nag nga xam ne sëñ Muntaxa Mbàkke yëkkati na ko aha ba nekk liggéey bu rëy a rëy ndax Touba defar ba ba fa bari dëgg la.
ndax Touba war nañ faa defar canalisation yu doy Touba war nañ faa créer ay ndox artificiel yoo xam ne dina wër Touba aha liggéeyu Touba yaatu na yaatuwaay boo xam ni luñ fu ñu ko xayma rek ëpp na foofa dëgg la Euh, kon di ko loolu dañ ci soññ mbokk jullit yëpp ñëpp nañ ci def seen loxo dëgg la.
Euh, li fi- buñ jëmee boo egsee nag ci li nga xam ne moo jëm ci rajo bii nga xam ne moom nga yëkkati rajo bi tamit nañ ci bàyyi xel dëgg la.
maa ngi sàkku ci képp koo xam ne ñëw na ci suba ci julli bu ca gisee sëñ Saliou
nañu xam ni fi tabaski ñaari weer dana fi taxaw wala ñu fee amati ndaje dëgg la képp ku teeg yow na yëkkati lilaahi war a sóoli dara jox la ko ci rajo bi macha allah.
ëppalee la ko ci rajo bi ndax rajo comme ni ko ajaamati yu waxe loolu ci koy doxal te dañ koy fay te boo amul xaalis doo wax kon la ci ñëpp jàpp ku gisee ak yow daal maa ngi sàkk na na yëkkati addiye jox la ko man sa kaasam boo ma ko joxee léegi ni sama bante lu may di jëf ci rajo Touba ca kanam nag ñun di ñëwaat man rek nañ ànd ak Adja Adja naati comme ni nga ko waxee ndax moom moom bu ne aj naati jaw dama naan naati gerte la jaw waaw moom yàlla na ko yàlla may wér ak fekkettal moom tamit ndax du mooy dara tànkam mu dara maa ngi ziyaar ñëpp di jox ñëpp seen wàcc waay asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh
mbokk jullit yi mbokki taalibe yi xam ngeen ni bisa ngi nii boo xam ne ku ci feeñ sa dara dootu la booti kon ñi ngi ñaan yàlla incha allahu rabbi àgg ca bis ba ñu déglu mbooloo mi góor ak jigéen mag ak ndaw nañ ñëpp ñu taxaw màgg Sëñ Modou Moustapha Mbacké ñu ngi leen taxaw jëkkoo màgg Sëñ Modou Moustapha Mbacké góor ak jigéen mag ak ndaw Moustapha Cheikh Moustapha fandu maaju maaju falilu magal ma Cheikh Abdoulaye yokku Bismillah.
maaju maaju waaw asalaamaaleykum.
maaleykum salaam soxna moom yi waaw suñu Saliou.
ñu ngi lay siyaar bu baax a baax ah kontaan rek tey kenn la wul fajo bi macha allah.
jërëjëf yàlla na yàlla yàggal di kontaan di ñaanal suñu sang boobu génn di sëñ Kàkku Gaawaan moomu. di sëñ Fallou. nu du sëñ Fallou jëmm ji ak jikko jéeg lépp macha allah di ko ñaanal gudd fan ak xéewal ci barke Sëriñ Touba.
dëgg la di siyaar na ñi fi jaar ñëpp a dugal ci njëgalu sëñ Pape Dramé. mi ngi suñu jëwriñ. di ko ñaanal te mu yàgg a jiite di siyaar ñëpp di balu ñëpp àq di baal ñëpp àq.
dëgg la vraiment continuer nag dem nag ma wax la ci jullit suba gi ñu jëm. bu subaa maa bëgg ñëpp génn daayira soxna Jaara la ñëpp génn ñëw julli si te indaale seen i adhéré fañ tàkko gaawaan dina julli si ak sëñ Seex Mbàkke ñoom ak ñi fa nekk ñëpp dinañ julli si kon la ñëpp ñëw fas yéene ñëw ci julli si indaale adhéré ji ak moori koor yi ñu ngi leen di balu àq di leen baal àq wax dëgg yàlla def ngeen leen war a def lépp yàlla yàlla na yàlla nangu koor gi eh, te jéggal ñu suñuy bàkkaar defaal ko suñu njaboot bàkk sëñ Tuubaa allo allo ay bisimilah soxna moom yi waa waaw jàngi waaw léegi di di siyaar ñëpp di tàmbalee nag ci siyaar bi suñu abi bu jom mi njëkk a dugg ah, di ko siyaar ci wax ju rafet ji sëñ Baye Fall mag moo xam ne bu duggee ñëpp kontaan moom tam ñu ngi koy ñaan bu baax a baax di siyaar suñu muur bu sa sama càmmiñ sama lépp moom bu duggee dugal la daa kër daa yéene maam jaara bu so yàlla ko yàlla fay di siyaar suñu Abdou Diagne Ndiaye dig lay gën a wax ji di siyaar soxna soxna Mati Diouf moom bu duggee moom tam dugal na waa kër soxna jaara yëpp wax ji rafet na wax dëgg macha allah Dëgg la.
moo na maa bañ a dugg waaye daal damaa yëngu rek ma ne xaaral ma dugg ndax lii ma mënu maa ñàkk a dugg soxna naati jaw ñu ngi koy siyaar bu baax moom dafa jaar tànk magam dafa ñëw fekk soxna Fatim Jaw la ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi mu màgg nañu du ngeen ma ko dàq ànd koog ñun moom te ñu ngi koy siyaar bu baax ak sëñ Jóob Rameer bu mu génn su ma limee damay juum maa ngi ji siyaar ñi fi jaar ñëpp di siyaar di siyaar sëñ soxna dikkal bajaan suñu jaww li nga xamante ne moom kooku macha allah yàlla ko yàlla defal cap di siyaar ñëpp rek tam li soxna Faama ji ba ci suuf du wootale ci bis bi comme ni ko soxna Mati Diouf waxee rek duñu wax benn duñ duñ ne duñ ne benn tarixa dañ naan jullit yëpp lañ ci woo ndax Touba ca kanam ku fa dëkkul amoo fa kër it bëgg nga faa am kër wala am nga fa kum fa am kër te bëgg nga faa dem di siyaara ji dëgg la kon nag lay jëmale Touba ca kanam ni ko sëñ Gàkko Mbàkke waxee di ñaan sëñ Abibu mu yàgg fi loolu te wér ak sëñ Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg te wér Mbàkke baal la di ko Wallaay.
siyaara di ko di ko ñaan mu mu mu- mu mu fekk korite yu baree baree bare ay cent mu ko cent yu tegal barke Sëriñ Touba di wax nag ne Touba ca kanam moom na ñëpp ñëw rek euh, së- sëñ Saaliwu na ñëpp génn moom daal ci ndi- ci njiitul sëñ Masay Ndiir mi nga xamante ne mooy suñu jëw nekk suñu kanam ak soxna Soola Fall mi nga xamante ne moo yore carnet yi ak soxna Faati Bey di siyaar soxna ab si ndaw jëw moom tam na dugg woo waa état yi di woo ñëpp rek moom daal bàyyiwuma kenn su ma limee danaa juum te bëgguma juum sëñ wàkk mbaa ñu ngi koy siyaare damaa bëgg daal ñëpp génn man daal dama sëñ tàkko sànq sànq dama ko le mbàkke dañoo bëgg nga ñaanal ñu ba rek fu ngeen mas a dem rek yàlla na fi dem bii dàq lu ñu fi mas a lu ñu fi mas a def yàlla na fi lii dàq ci barke Sëriñ Tuubaa yàlla na ñu am ndam ci barke Soxna Jaar ci barke Touba ci barke jëmm dëkk ba nga xam ne moom la ko fexe muy Touba ñu ngi koy ñaan ci barke Touba yàlla na Touba jëm kanam ak sëñ Ismaïla Sall tam ñu ngi koy siyaare bu dégg nañ ko bu dugg sëñ Saliou daal dañuy bàyyi lépp sa loxo daal rek tax ma dugg ñoo ngi woo ñëpp di soñu ñëpp nañ ñëpp génn bàyyiwuñu góor bàyyiwuñu jigéen comme noonu ko soxna Mati Diouf waxee ñoo ngi woo soxna soxna aram aat ñu ngi ko ci siyaar bu baax a baax ñun ñëpp la bàyyiwuñu kenn li ñu waxoon nag kenn képp koo xam ne am nga looy joxe soo jaaree ci 106 bi soxna maam Astou Diop mi ngi 106 bi di la xaar soxna mère seen ndigal ma nga ca ma ma ma nga këram ku ko woo ak soxna Adama nga yor na carnet ñi yor carnet yi bari nañu képp koo xamante ne ban ngaa joxe balaa booba mën nga koo dugg joxe. bu soxna Fane jii itam ku ko woo dina ko nangu kon daal ñu ngi woo ñëpp di di sant ñëpp di gërëm ñëpp soxna day maal maa pot porox maa la dugg eggale Thiès. mu daal sama xol ak seen seen taalu waaye ma woon ne maa bay dugg soxla ma di jub matal leen ñëpp waaye ma dugg leen naa siyaare ñoo ngi woo ñëpp di seet seen tàkko gën na ko gën a ñaanal ci barke Serigne Touba di seet seen ma seen bu baax a baax jërëjëf sëñ Saliou kontaan nañu jërëjëf ajaratu moom it tey ñoo lay duubee loolu ci barke soxna sa tëdd bi.
جارت لا كريم لك متوى كن جار عديس بني قد جيت تاريخ توى ودود النار مام جارت لا الحمد لله كريم دقمت واهما وشغال نيلن سلام عليكم فسجارتنا تدن مريم يوم جارت الله
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Saliou ñu ngi leen di siyaara di leen màggal te di leen jox seen wàccuwaay
yàlla yàlla nangu
di fas yéene jublu ci liggéey bi nga xam ne sant nañu ñu woote ci rajo bi ci liggéey bi nga xam ne moo jëm ci Touba ca kanam ñu bëgg ko boole ak yeneen ñaari mbir yoo xam ne dikkal nañu fi boo bëgg ko jàll ci rajo bi xam naa ne heure bi sori na xanaa di wax ne rek ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di jarajëfal Serigne Touba macha allah Baye Cheikh di siyaare sunu sang bu tedd boobu nga xam ne génn la fi Mbàkke Balla di ko ñaanal sunu borom defal ko tawféex te li mu fi dox si sunu borom defal ko ci lu kawe njortam noog moom ba lii nga xam ne moom lañ jublu ci di Touba ca kanam. yàlla defal na ci itam xéewal yu kawe sunu njort. ba bu ñu fi jógee rek daanaka liñ ci soxla li ci ëpp ñu amee ko fi. yàlla mën na ko ndax waa dëkk bi ay jàmbaar lañ ay taalibe lañ itam te ñu gëm Serigne Touba lañ te mën a joxe seen addiya. ginnaaw bu ñu ci soññee suñu bopp nag ñu ngi ci soññi mboolem jullit yi dimanche bu soobee yàlla la ñuy daje fee ca Black National Theatre. pour fa yéene liggéey ci lu jëm Touba ca kanam lépp lu waaye man rek nanga ko ci def loo mënuti tamit na nga ci jéem sa kemtulaale kàttan ndax sunu borom kàttanal la ba nga mën caa def lu xam ne dana ca jariñ macha allah te lépp luñ ca def itam sunu borom defal nu ko ci sunu téere yiw te dimbale itam lépp lu nu ca defit nu fàtte ko ndax boo dee liggéey tey geestu da ngay def ne li ngay bay bari na te fekk ba yegoo dara xam naa ñu gàttal ko foofu rek ñu ngi soññ ñëpp bu soobee yàlla fii boobu beneen rajo bi fi am buñ ci duggee jàllale ca. am itam ab tàgge boo xam ne daf lu fay dikkal ñu bëgg mbàkk bàll.
maa nga teel ñu benn minute rek incha allah.
رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين suñ seex bisimilah
waaw asalaamaaleykum encore xam naa ñu ngi jégalu bu baax ndax yaaxa dugg ci rek ñu am tàgge bu ñu fi dikkaloon ñu bëgg koo jàllale sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général de Mouride ci Sénégal ak sëriñ Abbas Mbacké xalifa borom Daaru Muxti ci Daaru Muxti alhaji maam Thierno Mbacké di xalifa sëriñ Cheikh Awa Balla ci Daaru Manaan ak mboolem xalifa sénoo yi nekk ci Sénégal ak sëriñ Fallu Mbacké gelongal mi jiite Mbacké Mbacké yi nekk fii ak imam Xaadim Busa mi jiite kër sëriñ Touba gi ak mboolem ilimaan yi mu bokkal nekk imam Moustapha Diop ci ilimaan yi di daayira Daarul Moxti fii ci New York ak mboolem waa daayira Daarul Moxti bi Sëriñ Bachiru Baabu di mag ci ki fi bàyyikoo Soxna Ndey Baabu di mag ci ki fi bàyyikoo ca Sénégal Soxna Awa Cheikh Awa Balla Guèye di mag ci ki fi bàyyikoo fii ci New York nday koddu gi di rakk ci ki fi bàyyiko fii ci New York ak borom këram sëriñ Modou Fall ci New York nday tuuti gi di rakk ci ki fi bàyyiko ak borom këram sëriñ Babacar Diop ci New York mbay gi di rakk ci ki fi bàyyiko fii ci New York ak soxnaam bu ndaw jaata Faala Guèye di rakk ci Faala Guèye di rakk ak borom këram borom këram Taala Fall wala Paala Fall ca Sénégal Omar Gueye di rakk ci ki fi bàyyikoo ca Italie Pape Seet Dramé président daayira Mika ak mboolem waa Mika ñi soxna moomi seen ci président daayira Maam Jaara ak mboolem waa daayira Maam Jaara bi soxna ami jaxumpa di président daayira naari kajoore ak mboolem waa daayira bi ndax ndax ndax dagga dagga too yi ak a dëkkandoo yi maa ngi jéggul rek niñ ko bindee la morta dëkkandoo yi ak xarit yi bokk yi ñoo am tiis ak métit di tàgge soxna Oumy Gueye faatu na ci démb ca Sénégal ñu rob ko tey jii ca Touba démb lañ ko rob maanaam mi ngi ci ci démb la nekk ca Touba dinañ ko saraxal alxemes bu soobee yàlla ca Pikine tari bu mag ñu ngi ñu ngi nangu na ko ñëpp ñaanal njëggal ak yërmande sunu borom jégal ko te tàbbal ko àjjana képp koo xame itam bëgg nga jaale mën ngaa woo nday nday koddu géey ci numéro am nday koddu géey ko woo ci numéro am mi ngi nekk six four six three seven two two zero eight two zero zero eight képp koo xam ne bëgg ngaa jaale it mën nga ko woote jaale ko maa ngi jéggalu nag xam naa fax bi niñ ma ko yónnee moo xaw a jaxasoo tuuti rek waaye ñu ngi sàkku ay ñaan ci ñëpp bu loolu jàlle itam ñuy fot fàttali mboolem waa daayira daarul muxti bi ne daayira bi dañ ko waroon def suba waaye julli gi moo tax dañ koy jàllale ba àllarba bi dellu si intra allah rabbi taala waa daayira daaru maan bu ko defee ci xaw balla bi ñu waroon def moom itam ci talaata ji dañ koy jàllale ba talaata bii di ñëw. xam naa Saliou li ñu bëggoon a wax lépp wax dëgg yàlla heure bi moo xat nu yéex a dugg rek ndax jamono ji ni mu demee. waaye ñu ngi baal ñëpp àq nag te balu àq itam di siyaare ñëpp ci weeru tedd wi ñu génn ak di soññee bu suba ak jàmm la ñuy julli fii ñu daan jullee ci cent trente sept kër Sëriñ Tuubaa bu dix heures jotee taalibe yëpp nañu pasteefu te ñëw kuy ñëw te am loolu laal itam nga indaale ko ku am ñaar wala ñett nga indaale ko ndax ñëpp mën a am fu ñu toog ba mën a julli Baye Cheikh Mbàkke Bal ñu yóbbante la yóbbante boo xam ne ci xol la jóge jaar ci jëwriñ tabbi ci mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi déglu di jullit soxna nday kodd moom yal na yàlla xareel ko magam ji àjjana amin amin amin ndax as gor la jiital nañ ca sëriñ ba sëriñ Muudu Fall tax bun kër booy dugg duggal ci bi jaaral ci yoon wa dëgg la
soxna nday kodd moom lam jëf liggéey ci laytu xadar gii loola dong day am nañ yaakaar ci ni ñii mu sante magam ji gërëm ko xamal ko ni moo yoroon léppam di léppam ànd koog soxna nday tuuti gay ak sëriñ Cheikh moom ngay wax ndax wax dëgg yàlla mi ngi liggéey liggéey ba rafet ci kër Cheikhul Khadim Cheikh Ahmed Bamba waaw te noonu lay liggéeyee ci këri lislaam yépp du tànqam lu dara kon ku julli nee na li mu deseel magam ji mooy ñaanal ko Cheikh xam nga ne xéewali laytu xadar gii yaa ko teg ko yaa ko jëli yaa ko wàcc wallaahi benn togg du ñaar du ñett dëgg la sëriñ Saliou Samb nag moom man li may bañ moom mooy nëbb jëf xalaatuma ko ci sama àdduna lu ma dégg wax ko lu bon kay lay nëbb du ma ko dëgg la waaye aw yiw yàlla na ko yàlla defal jàmm yàgg naa koo wax te toujours maa ko daa jëli di ko wàcce ci kër Seexul Xaddim gii nag waaye noonu la ko soxna Mati Diouf defee togg ba mu kii insha allahu rabbi yi indi moom yaa ko jëli waaw soxna Soxna Fall ka saalika naka noona ñu ngi koy sant di ko gërëm togg na ba mu kii mu jox borom këram mu indi ak ñi fa indi ay xéewal alaaji Omar Karoñas ki ndigal sëriñ Pape Sir Dramé ndigal soxna moomi seen bu ñuy wax foofa la ñuy waxe teg ko ca mag ña nag ku ci mel ni sëriñ Abdou Gueye sëriñ Modou Fall Baye Fall sëriñ Habib Diom waaye nag ci jëwriñ ya ku ne xam na ni sëriñ Cheikh Amar ñoom ñëpp ñoom maase rafetlu li nga xamante ni nii day mooy alxuraan ci xale yi doon wàcce sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh yaakaar naa ni lii buñ doon wax ci fi nga xamante ni nii day mën na ne aw naqar waaye yàlla dina def lu metti waaye du def lu gën ko dëgg la kon kii ñu dëddu ci weer wii mu ko defee kenn ku ci ne xam na ne sawar a teg nay buntam loolu mu amul ma dem te ñëw dëgg la rafet nañ ci ndort bu baax a baax nday koddu loolu nga wax dogguma la waaye noonu mu taxawe noonu ci ci ci daayira Meka bi nga xam ne mooy daayira Kër Sëñ Tuubaa bi daayira Daaru Muxti bi nga xam ne itam fa la fekk noonu la fa taxawee wax dëgg yàlla di fa def loo xamante ni si lu lu lu am solo la moom rëy na lool ci bëti ñu koy gis waaye moom nag rëyut ci moom waaye nag yàlla na ko yàlla fay jërëjëf ndax it bu koy def itam daanaka sax du bëgg nit ñoo xam ko te ni mu lay feeñ la ca suufu ko la la la nëbb moo gën man it xam naa bu baax a baax ci moom loo xam ne dëgg-dëgg du duñ ko mën a wax ci rajo ci ay jëf ju baax joo xam ne dina koy def wax dëgg yàlla nit ku baax la ñu ngi koy ñaanal te di ñaanal moom itam magam jooju nga xam ne waa ci la liggéey sunu borom jéggal ko te tàbbal ko àjjana ñoom it moom nday tuute ak Serigne Cheikh Awa Balla seen mag bi fi nekk. ak Serigne Mbaye Serigne Mbaye moom dem na Sénégal bi mu ko yëgee rek démb la dem. ñu ngi leen di ñaanal te xam ne tiisu métti métti dal na ci seen kaw dal ci sunu kaw waaye nag nu muñ ko ndax yàlla moom lu mu def du naqari ab jullit waaye dana ko metti looloo tax ci tàgg bi sax du ñu wax ne aw naqar dañuy wax ne aw tiis ak mettit ndax ab jullit du du naqar lu suñu borom def daf koy tiisoo waaye nag ñun ñaanal leen moom itam ñu muñ rek te xam ne suñu borom mi ngi ànd ak way muñ ñi kon nag li ci des saliw ñoo ngi baal àq ñëpp waaye sëñ Cheikh Mbàkke bal la ñu amaat cant gu mag jóge ci ndawi daaru mus yi ci njàng mu neex man fa jàng ñaari ndawi daaru mooti ñu ngi noonu waaw ñu ngi siyaar baax ndawi seexul xaddim yi waaye ndawi daaru musi ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm njàng man fa njàng menn la dëgg la ba ñu tegee téere yi siñ seex dañoo daal di jël gabisi kaala yan defoon ci seen loos takk ko ci seen ndigg bale foofa ba mu set ñu minaas ko dem jëwri ñi nag ban ma tegee nee nañ ma yaa ci gisal sa bopp man leen maa teg sama bët maa ko bind mi ngi nii ma tiim ñu ngi leen di sant te di leen gërëm ci yar ba ak teggin yaat ka saalika naka noonu di ngay jokkoog ñoom di ngay giseeg ñoom ndax ndaali benn la waaye ku ne xam na ni lépp lépp moom maam Cerno la ndax moom la Seexul Xadim dénkoon gaañ kon sëriñ Seex ñu ngi seer waa daayira Daaru Musi bépp yaakaar naa ne buñ toppee noonu la ca des incha allah teewut line baa ngi dem ba léegi waaye mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mënuñu woon a ñàkk bañ a wax lii nga xamante ni nii moom lañ xam ci soxna Ndey Koddu Gey ci naqar bi waaw sëñ Saliou waaw bisimilah
doguma la yow itam mën na maa wax ne dëkk bépp ñu ngi la ameel ngërëm ak cant ndax dafa am liggéey boo xam ne dañ la koo dénk muy porte parole u Mika waaye loola da nga koo doxal ba mu mat na nga xam ne porte parole noonu lay doxe am nag yeneen i yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne da nga ko boole ci biir di ko dox ba nga xam ne mel na ni yooyu yëpp yëpp ci sa responsabilité la nekk ndax maanaam amoo frontière ci liggéey bi te noonu nga koy defee ci diggante këri diine yi fi nekk yëpp yaa ngi koy rafetal fenn fu ci nekk ay ngërëm ak i cant dina fay jóge am na ñoo xam ne danañ ma ko danañ ko jaare ci man di ma wax ne na nga ñu santal Serigne Saliou kon ma itam dina rafet bu ma dikkee ba ci rajo bu mel nii ma jot li ko ñëpp dégg ko ndax lantinoor kat dañoo wax ne du tëyee diw te ña koy wax dañoo bëgg mu ak ñu xam ne ñu xam ne waa daayira murid bi ñu xam ne kat seen mbokki tarixa yi nekk ci dëkk bi ameel nañ cant ak ngërëm Serigne Saliou Samb mi nga xam ne mi ngi nekk ci kër Sëriñ Tuubaa di fi liggéey ba pare di rafetal diggante bi ak mboolem këri diine yi fi nekk ba nga xam ne fu mu fi dem sax da ngay defe ne fa la bokk loolu lépp ci rafetal la waaye nag képp kuy rafetal da nga xam ne suñu borom moo la gën a mën a rafetal kuy def lu baax it suñu borom moo la ëppale lu baax te yàlla na la ko yàlla fay li nga xam ne liggéey nga ko ci kër Cheikh Salih Mbacke itam yàlla na ci yàlla dimbali la nga teg sa loxo ak mboolem jullit yi ndax ñëpp dinañ ci xaj ndax li nga doxe fii wane na ne kon foofu am na noo fa doon doxe nit nag wax sa baaxu moroom du yàq dara ci sa baax liggéey bu bu mag a mag a mag a mag yaa ngi koy def ci biir dëkk bi ak rafetal boo xamante ne si yàlla xam na ne da nga rafetal rafetal ba nga xam ne sax sa xelum bopp ngay demee ci rafetal waaye yàlla na la yàlla fay amiin ñu bokk lépp waay jërëjëf ci war may sëriñ bi macha allah maa ngi baal ñëpp ak di balu ñëpp ak di jéggulu ñëpp di wax ne maa ngi feddli sama kóllëre sama diggante ak mboolem waa dëkk bi di ñaan ñu di ma ñaanal te bàyyi ma xel ndax àddina dafa sàmmuwut wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbàkk baal tàggoo budul tàggatoo ndax wax dëgg yàlla noonu ma ko ci sëriñ Amdiri Jàll Baye Sall foo nekk ma ne ko maa ngi fii de wax dëgg yàlla mooma ba ma ñëw mu ne ma rajo bii de des na ci jàpp te nii lañ ko fas yéene jàppee ca kaw yoon wii nga jaar te wàccoo ko yàlla buñ ko wàcc amiin waaye yow miit bi ndogee tey jii noonu nga lambe sa poos waaye ku ne xam na ne lant torga di sëriñ Ousseynou Diallo noo ne la lambe poosam waaye sëriñ Jibi Ngom kasaalika naka noona waaye sëriñ Cheikh Jëmb sëriñ Abdou Samb sëriñ Abdou Kan ñoom ñëpp ñu ngi leen jox seen wàccuwaay sox jaru ci moomi seen nag mooy jëwriñu rajo bi kon nag sëñ seex dénkaan foor na waaye kuy tiit rek sa ginnaaw rafetul dëgg la kon mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi ci tàllal ñëpp loxo waaye soxna bintu jang alquran ak soxna Seynabu jang kenn ku ci ne xam leen ak soxna maam pend siise ñoom ñëpp ñu ngi ci biir te jàpp ci waaye loolu lépp buñ ko defee taxañ jox ko jëwriñu daaru mu si jigéen ji ku ne xam na ne mooy ajaratu meer seen ñu ngi koy jox wàcc waayam ci guddeeg bëccëg suba ngoon muy laaja rojo maam jaara te maam jaara jara liggéeyul sëriñ Cheikh mucc gu ànd ak xeewal ndax day mel ni jëwriñ yi laxasaa yi ngi ñëw muy kan kenn ku ci ne xam ne sëriñ Modou Gueye moo egsi léegi incha allahu rabbi yi war a daal di joxe participation am ci li nga xam ne si mooy Touba ca kanam sëriñ Cheikh jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm baax na jërëjëf Sam macha allah
bisimilah rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit mbokki taalibe yi man Mour Gueye sant sëñ Fall maa ngi leen nuyu kenn ku nekk turam ak santam te di la siyaare te di la balaax di la balaax di ñaan ci kàttan suñu borom lépp luñ jaamu yàlla ci weeru yàlla nag suñu borom nangu te bu ko nangu fulal ñu ko jën fàtt li nga xam ne kenn fàtte ko muy julli gi war a taxawal suba ci kër sëñ Tuubaa ak 137 diggante Ejkom ak amoon incha allah 10 heures ci ndigal sëñ Aliou Mbacke ñoo jiite. jullit eeg gi incha allah ma ci soññ nag bokki lax saa yëpp comme ni ñu ko daa defee saa su ne ak ci muuru koor yi ndax dañ ne muuru koor yi képp koo xam ne da nga ko war a joxe ci guddi gi tey wala boo xëyee bala ñoo taxawal julli nga joxe muuru koor kon nañu ci fàtt di ñëpp rek képp koo xam ne fàttawoon nga ko nga dem ko gaaw joxe ko bu ñëwee bala ñoo taxawal julli incha allah dina am ñu fa nekk ñoo xam ne dañ yor ay mbuus pour laaj loolu pour muuru koor incha allah ñu def ko ni ñu ko daa defee ci ndigalul imam bi ak ñi nga xam ne moom lañ àndal liggéey bi kon nag may wax ñëpp rek sama bokk taalibe yi
jërëjëf kooku mooy Serigne Modou Gueye yaakaar naa ni incha allah rabi des na ci dellusiwaat incha allah su ko defee kenn ku ci na xam ne fu toll woon mooy fi nga xamee Serigne nii mooy waxtu suba bi nga xamee dana war a julli Fallou bokk julli di bokk itam ñu maase fi fi dëkk bi mu seen gan goo xam ne gan gu tedd gan gu baax goo xam ne aay ju waay am bay boo nga def siyaare ji ko xam ne moom comme ne sëñ Fallou mooy na am na am du am du am ca mooy sëñ Fallou sëñ Tàkku Mbàkke kon ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci New York City xam naa di ñëw ci li nga xam ne moo la indi rek muy Touba ca kanam Touba ca kanam loo xam ne sëñ Abibu Mbàkke bu sëriñ Fallou moom moo ko xalaat ak i bokkam ak waa Touba gépp ak ak Sénégal gépp ak mboolem jullit yi ndax Touba moom ca kanam la ma dem mu toog xalaat ne war nañoo ma defar Touba ci ñun suñu doole ak suñu xalaat ak suñu xalaat ba lépp li nga xam ne Touba soxla woo noo ko ñun taalibe ñun jullit yi ñoo ko defal suñu bopp. loolu nag ñu taxawal ko ay at ci ginnaaw ba gis ngeen liggéey bi ni muy doxee gis ngeen flyers yi gis ngeen Touba lañ fay def. ak lépp àdduna bépp ñëpp bëgg ci loolu nag sëñ sëñ fi ñëw tey jii mu sëñ Tàkko Mbàkke im na sëñ Fàllu moo tax mu ñëw fii tey pour taxaw si loolu ban bés lay doon le 9 juin 9 juin lay def fii ci National Black Theatre incha allah 4 heures ba ba minuit képp koo xam ne bëgg nga cee barkeelu bëgg ngaa jàpp ci liggéey bi ñu ngi lay woo nga ñëw ci ndax liggéey bi nga yaakaar naa képp koo dégg nga ci bëgg a jàpp da nga ci bëgg a barkeelu ndax Tuubaa kat dëkk la bu sell boo xam ne jullit yëpp nag la ñu woo waxee waxuñu murit waxuñu kenn ñëpp jullit lañ soxla woo moom la ñu woo ñu ñëw jàpp ci liggéey bi ngir Serigne Touba kon nag loolu la ñëw nañ ko sànni ci kàddu yi ci barke Serigne Touba jërëjëf.
jërëjëf sant sëñ Fallou sëñ Modou Gueye ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax te di la siyaar kon xam naa ni mbokk a ngi ci kaw bisimilah.
waaw sëñ Saliou.
waaw bisimilah.
sëñ Massin biir la.
sëñ Massin bisimilah yaa koy tëjee yow. bisimilah sëñ Massin.
asalaamaaleykum wa rahmatulah.
waaleykum salaam wa rahmatulah.
sëñ Saliou ñu ngi kontaan ci yow bu baax a baax a baax.
jërëjëf bu jëwriñ kontaan rek yàlla nangu na. te di la ñaanal ci jotale beeg yëggeeg lépp ci Touba ci kanam.
macha allah jërëjëf.
waaw lépp matériel la kaar kaar macha allah ndax daanaka waajtaay bi boobaak léegi ñetti weer la. waaye yaa ngi soññee guddi yaa ngi soññee bëccëg yaa ngi soññee ngoon. ndaje mu mbooloo ma tey ba la ñu faa jóge nga yëkkati fa li nga xam ne ñoo ko bokk muy Touba ci kanam ndax ñoo ko bokk ak jullit ci dëkk bi yëpp.
dëgg la.
ñu ngi dalal suñu sëriñ bu baax bu tedd bii nag di alaaji sëriñ Tàkko Mbàkke ibnu Cheikh Mamadou Fadel Mbàkke. di ko wax dalal jàmm Mbàkke ndax daanaka xel daa dal.
dëgg la ndax boo jëlee sa gopp jëm ci tool ñuy bay ñun baykat yi. am jëwriñ ju mat jëwriñ di taxaw ca kanam naan dañ jaaral fi dugal fi saxal ne war naa dal. te xam ne tool tool ba du booy.
dëgg la waaw te nga xam ne tool bi moom tool bi yàlla la boobu yonent bi la boobu sëñ Tuubaa la. waaw kon nag ñu ngi ci woo ñëpp rek di sant waa dëkk bi ñëpp nag ñu dala ci imaam Xaadim Busu ak. sëñ Papa Dramé ak mboolem koo xam ne kii rek yaa ngi nekk ci dëkk bi daayira maam jaara bi dégg nañ soññee yëpp sëñ Modou Gaye ñoom ak ñi dugg ñëpp daal dégg naa la mënu ma leen a lim dëgg la waaye nañu xam ne moom li sëñ bi wax rek nee na moom bërigo buñ teg ci mbartal la nee na boo puusee mu dem boo puusul mu dem kon nag yàlla nañ bokk ci di koy puus te nga xam ne bis bi ñu jëm itam muy le neuf juin bi ñu ngi ciy tàllal loxo mboolem kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulillah ñu ngi leen ci tàllal loxo bàyyiwuñu kenn.
dëgg la di murit di xaadi di tiijaan di laayeen di góor di jigéen di mag di ndaw. ñëpp daal xam ne bis bi ah seen bis la. ndax bisub Tuubaa ci kanam moom yaakaar naa ne mboolem ku di julli rek xam nga ne sa bis la.
dëgg la kon nag ñu ngi ci woo. mbokki taximaan yeeg sama ñi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi ak jaaykat yeeg ñëpp rek ñu ngi leen di woo. nga xam ne ñu ngi séentu ñëpp dimanche daal ñoo xam ne gan ñi jóge ci état yëpp it ak ci àdduna bi. buñ ñëwee bu kenn wax ne sam ganug diw la wala ganug ñoo xam ne ñëpp suñu gan lañu. ñu teeru leen teral leen ah ba liñ ci bëgg ci lépp ñu def ko bu ñuy dem ñu gunge leen. te yàlla may na ndam ci bis bi ñu jëm ci màggu yàlla ak tedd nga yonent bi. barke Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne mooy suñu buntu ci sëñ Touba. ñi ngi sant magu dëkk bi ñëpp nag dégg nañ leen ñoom Modou Fall Baye Fall ñoom ak sëñ Abib Diom ñoom ak sëñ Abdou Karim Mbaye buñ limee juum daal dëkk bi ñëpp dugg nañu jigéen ñi.
dëgg la waaw waaw kon nag mm, sëñ Saliou ñu xamal leen ne daal li ci def bàyyi nañ ko ci loxo. xamal leen ne bis bi daal seen bis la.
dëgg la.
waaw ndax itam àdduna bépp ngi ñu déglu. te liñ ci yaakaar am nañ yaakaar ci ne daañu ko ci am. ndax def nañ ko Italie def nañ ko France def nañ ko Espagne tey kaar kaar macha allah. sëñ bi yëkkati ko nag ne nañ ko defee nii ko ci dëkk bu doy ba. kon nag yàlla nañ yàlla àggalee suñu yéene ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf sëñ Saliou.
jërëjëf sant nañ la bu baax nag.
jërëjëf sëñ Bass Mbassé Ndiir ñoo ko bokk mucc gu ànd ak xéwal yu bare bare yaakaar naa woote bi jotale na waaye nit ci dinañ ko mottali kon mbokki jullit mbokki taalibe yi niñ ko waxee woon ñu arwa ànd ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi nga xamee seen ni kenn ku ci ne xam na ni jamono ju nekk jamonoom la kon bismillah ak borom Tuubaa
ñu woon mbokk yi ginnaaw bu ma leen nuyoo ginnaaw bu ma leen santee ginnaaw bu ma leen ndokkee ci bis bi ginnaaw bu ma leen baloo ak ma wax daana ngeen ay kàddu yoo xam ne waxtu yi xat na waaye dafa mën di ñàkk kàddu yi dañu jëm ci yaari fànn bu jëkk ji mooy ndigalal sëñ Tuubaa li nga xam ne mooy suñu lépp nga war koo sàmm ci suñu jiiru dund di ko rafetal di ko doxee na mu ko waxee yore yi ndigal ñun murid yëpp noo ko bokk ma fàtte leen ko leeral leen ko julli ji nga xam ne dana di ñëw ñu leen di julli ñun ñu bañ a julli ñun dañu ko sëlit dañu ko dul tax li ñuy def moo di li ñu sëñ Tuubaa digaloon sëñ Tuubaa toog na fii sax daan toll ci suba sa bi subaa la la séenu bu jëkk mu xam la ne man day wenn weer du dem ci soog bi ñu ne wenn weer du ñëw ci ñu ñu dañu leen te sax baa ngay toggoo guma ramalaana nuyoo guma bu ëllëgee la seeni bu jëkk ci weer bi da ngeen seen li niru weer waaye bu boobaa na leen wóor ne seytaane la loolee ba mu ko waxee mboolem ña nga ne déggoo dañu ko ba ñu gisee weer wala ñoo sëlmi fii suba suñu bañ a woor ña ña ña ko déggu te xawee koor it ba ca bëccëg bëgg ko yëgee yëpp dañoo dox ñun waa Touba ji cër ca tisbaar lañ dox mboolem lii may wax lenn loo xam ne ubbi na kenn ñëpp ci ndax mboolem ñu ngi ñëpp ay soirée la ñu li may wax. ba loola jàllee mu am lu ñu ci sësale te yéen di wax ne sax daan bi sàngam ci la bokk di leen wax ne bi sàngam ci ramalaana la bokk. ki nga xam ne moo wax ci alxuraan saaru ramadaana la ci unte ci alxuraan di ko ko di ko ko xamal li ko noppee wax ak yéen maa ngi leen di jox ndigal lu wér loo xam ne na ngeen ci jàpp te bu leen ko bay ndigal loolu moo di bu boobaa xool leen seen nopp te fal seen bët képp koo ci xam ne gis nga ko na nga gis nga weer na nga wori wala nga woor boo ko gisul defal fa leer ndigalam loolu tere ba nga ko diglee ba fi mu ne ci la noonu la te duñu ci jóg te kenn mënuñu ci jëlee kon nag yéen taali bi yi nga xam ne yaakaar du leen turul Sëriñ Tuubaa te li ngeen di def yaakaar Sëriñ Tuubaa tax ngeen di ko def maa ngi leen di leeral ndigal loolu te di leen digal itam ngeen jottali ko fu ngeen jëm mboolem taali bi yëpp marché ci xam ne loolu la ñu digal loolu la ñu war a def murit nag nekk fi barab di fa benn wala mu di fa ñaar wala mu di fa ñett ak mu di fa junni ñoo war a yem loolu ñu war a def rek mooy kenn ku nekk sàmm la Sëriñ Tuubaa diggee nga di ko def loolu de loolu la muy def te duñu ci jóg li ñuy def nag soxlawuñu ci sax wéttal li wér daal mooy lu ma war a def la rek di ko def li ñu Sëriñ Tuubaa digalee moom la ñuy sàmm di ko def xamal lan nanu ne ku bëgg di ab ku bëgg di ab sang da ngay nangoo nekk ab jàng ku bëgg di ab sëriñ da ngay nangoo nekk ab taalibe ku ne ku ma topp ma dem ku ma toppul ma dem boo geesoo seen mbooloo ci sa gannaaw looy màttan ko joxe ngir yàlla foo geesoo gis ko la paatana jox ngir yàlla looy am teetaloo ko joxe ngir yàlla boo wari ëddi ba mu dajjal gis ko la paatana jox loolu sëriñ Tuubaa ko wax wax ne lii ma wax ku ko seet gis ko ngir dama sa jaar ba jàll door ko wax kon nag nan mooy ci ndigal sëriñ Tuubaa yi te mu wóor leen ci ne ci la seen njëriñ addina ci la seen njëriñ àllaaxira nekk ndax ñun ay murit lañu te yëguñu ci diggante danoo fas yéene bii saa def bu loolu jàllee nag am na leneen nag loo xam ne danaa leen ko yëgal nag yéen taalibe yi lu ëpp téeméeri leefar ak nangam ci sama mi mi ngi seet naa ko démb mat na ko téeméeri leetar ak lu topp tawati taalibe yi rek ci nekk ci seen diggante ak rajo bi doo wax ne dañuy leen di manqué doo wax ne dañuy leen di jànni doo wax ne dañu leen di wax lu ñaaw loo xam ne wóor na si boo wax koo dëkkal ci réew ñu di ko dégg waaye man loolu lépp leetar yi benn bu ma umbi rëcc ci benn bu ma réer rëcc ci leetar yi nga xam ne sax ñeneen dana ko bind di ko jël ci kilifa yi di leen wax lu mel noonu loolu sax yëg naa ko waaye nag moom dañ fee nekkul ngir bëri addina ngir addina ci boppam sëñ Tuubaa dañoo dénkoon ne ku leen bëgg génne ci yàlla yéen delloo leen ci seen bopp ñun suñu bëri ci addina wala ngay soow ci addina yaa koy soow sa bopp waaye ñun du ma ko soow waaye nag bu tere dana am nag lu ma xamle bu leer ay murit lañu de te duñ doon lenn lu dul murit ay saadex la ñuy doon te duñ doon leneen lu dul saadex waaye bëgg naa nag mu leer leen lañ nañ nañ nañ nañ ne aw nit lañu ginnaaw bu aw nit lañu du ñu ak jub ak jub la fees jël jëlee ko la neex ñu jël ko aw nit lañu ñu ànd ak seen xel ginnaaw bu ñu doonee nit ay sénégalais lañu ñu wóor kon nag bu fekkee rajo bi Sénégal daf ko moomu kët moomatul xëy na digi cer bee ko moom ba ko neex lañ ci wax lu ko neexul ñu bàyyi ko ci mbaa ku ko mën a moom bu fekkente ni Sénégal moomatu ko daal nanu leer ñu def ko ci rajo ba ca Gunge wala rajo ba ca Mali kenn du ko dégg suñu baat dégg dégg seen commune. déglu leen déglu leen bu fekkee Sénégal dafa moom nag te moom murit na jàpp ñu ay sénégalais rajo bi duñu fi jaar si gannaaw tey bu ak magal ñëwati ba ñëw fi bu leneen xewati ba ñëw sëriñ bi maa ngi lay xamal ni la. déglu leen déglu leen déglu leen. déglu leen déglu leen waay. déglu leen yar ak teggin. sëriñ sëriñ Abdou maa ngi lay xamal ne la ñu nga baaxoo saa boo xamante ne waa bi suñu war a woo ñëw nga fàttali ko ci ci jumaa ji adduna yëpp xam ne suba bisub koor la ku mën na ko woor lépp lu ajooti ci bis yi nga xam ne ndigal li ñu sëñ Tuuba digal ci wàllu diine lu mu doonati du ñëw di yëgle yëgle gi li ci gën a gaaw laa lay wax yoon wa suñu bàyyi awoon rek noonu kaw taalibe bu nekk am na fi am na fi ku ko fi ku ko fi nekkal lu ñu war a fee def lu nekk na nga ko saaru ci taalibe yi ñu dem loolu digal naa la man ci sama bopp nag man li may def danaa leen ko wax loola moo di bu fekkee ñii ngay doxee biñ ne si yàlla sëñ Tuubaa di def
jërëjëf mbokk jullit yi mbokk taalibe yi kooku mooy Cheikh Abdou Lahad Mbacké kon mbokk jullit yi kenn ku ci nekk na xam ni suba la ñuy julli dix heures la ñuy taxawal incha allahu rabbi yi ñu ci ànd ak mbooleem jullit yëpp. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi kenn ku ci ne xam na ne am na xew-xew yu bari yoo xam ne ni mi ngi jëm ci suñu kanam waaye nii bis bi demee tey moo tax waaye ku ne xam na ni ba ca jëkk di sëriñ Basiiru Laay mi nga xamee se ni nii léppam ñun la lu xew mu jox ñu rajoom ànd ko ak ñun nee na mi ngi yëgal mbooleem jullit yépp bis bi nga xam ne ku ne xam na ni mooy bisu sëriñ Ousseynou Laay bi mu daa def di doon le premier soulier kañ la koy def yaakaar naa ne fa mu koy defee saalu malien yi fi ñuy jullee ku ne xam ko gën koo xam ci saalu Daouda Sarr foofa la incha allahu rabbi yi foofa lay defee li nga xam mooy bisu sëriñ Ousseynou Laay bi dinañ ci ñëwaat mu gën a yaatu lool waaye kenn ku ci ne na xam ni nii bis bi demee tey ak soññab Tuubaa ca kanam bi waaye bis yooyu egseegut waaye suñu xaritu bopp de suñu nit kenn ku ci ne xam ko muy sëriñ Daouda Sarr yónnee na waroon a dugg sax nag moom it incha allah laakaar naa dinañ ci ñëwaat muy li nga xamante ne li mooy waa kër Sën Tidiane loolu nga xamante ne mooy bis bi ñuy def dinañ ci ñëwaat booba mu gën a yaatu incha allah rabbi yi yaakaar naa la si suuli la wax dinañ ci ñëwaat gën koo yaatal bu baax a baax a baax a baax ndax nii ko Cheikh Abdou Lahad Mbacké waxee noonu lañ ànd diine ji ànd ko te mënul ko tàggoo kon yàlla nay rafet fu ñu toll mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kenn ku ci ne xam na ni Alaaji Sëriñ Omar Karo Ñas bisam bii di la 15 kooka dinañ ko yaatal ba yaatal loo xamante ni yaakaar naa ni ndax da ko fee jëf wax ko fi kon yàlla nañu yàlla yóbbu ca bis ba kañ lay doon la 15 fii ñuy defee fi nga xamante ne mooy Touba ci kanam ji foofu lañ koy defee incha allahu rabbi yi kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bis a ngi noonu boo xam yaakaar naa kenn fàttewu ko ñu ngi koy waaj bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax kon nag xam naa ni sëriñ Papa Góora Samb mi ngi woon ci yoon yi moom it war a dugg joxe ab siyaaram ak ki nga xamee seen nii kenn ku ci ne xam na ni mooy sëriñ Moustapha Diop Baye Fall moom it am incha allah rabbi yi participation boo xamee seen nii day wax dëgg jàmbaar la ci yëf yi guddeeg bëccëg subaa ngoon ma nga ca leetar ya ma nga ca saal ya ma nga ca lu nekk ànd koog Serigne Masey ak Serigne Gora Gueye mi nga xamee seen waroon naa dugg moom it waaye xam naa ni woote bee bari te line bi fees dell kon ñu ànd ak Serigne Moustapha Diop bisimilah.
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam sant Cheikhul Xadim Xadim Rasul sant maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina ñi ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di leen baal ak di leen baalu ak di ñaan yàlla sama borom tabaaraka wa taala mu boole ñu jéggal te lépp liñ ko jaamu ci weer wi mu nangul na ko te fulal na ko te làqal na ko fu yàq yégul ci màggu Cheikhul Khadim barke maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp suñu borom defal nu jàmm te sàmm nu te aar nu te jubal nu di leen yëgal rek ak a fàttali rek ne bis bii di waaj a ñëw muy bis bu mag boo xam ne liggéeyal Cheikhul Khadim Khadim Rasul la bokk na ci bis yi nga xam ne nii bis yi ni liggéeyal Cheikhul Khadim la muy jaayante bu mag boo xam ne nii taalibe yi waa kër Cheikhul Khadim waa kër Seydina Mohamed ñi ngi koy jaayanteel Cheikhul Khadim ci tool bi muy bisu Touba ci kanam bi di dimanche bii di ñëw di le 9 juin ñu ciy woote nag ngir dajale ci loo xam ne danañ ci liggéey dëkk ba sell bee di Touba ak la fa ye- la mu yelloo lépp ak la cay farata lépp ñu jaayante ko fas yéene def ci sunu kemtulaay kàttan ba mel ni ko su borom soxlaa tey ñaan fu nu toll rek sunu borom dimbalinu ba lépp luñ ci système ak luñ ci méppal rek sunu borom kàttanal na ko ban man ko ci dooleem ak yërmandem ak dimbalam bis bi nag kon ñi ngi koy defee dimanche lay tàmbali li ngay tàmbali 4 heures ci ci ngoon ba minuit ñu fas yéene faa jàng alxuraan jàng fa xasida lu cheikhul xadim yi waxtaan fa daal rek ci jëmmi cheikhul xadim lépp lu fa waay man rek nga def ko ci bis boobu ndax jaayante la boo xam ne lépp lu ci waay def rek jaayante la ak liggéeyal seexul xadim xadim rasul sunu yaakaar kon nag ñu ngi ciy woo ñëpp di woo mboolem këru diine yi bàyyiwuñu benn këru diine ñu ngi leen di woo yéen ñëpp di woo soxna yi mboolem daayira yi bàyyi buñ benn daayira daayira yëpp ñu ngi leen ciy woo te kenn ku ci ne nga am ci pasteef rek di sàkku seen dimbal di woo waa gën a soññ nag waa laxasaay yi nga xam ne ni ñoom laa bokkal liggéeyu seexul xadim bii ci dëkk bi njiitul sëriñ Modou Guèye sëriñ Gora Guèye sëriñ Balla Niang njiitul jigéen ñi soxna Fat Samb ak soxna Kenne Samb ak mboolem ñu nu àndal ñëpp soxna Awa Gumba la ñi ngi leen ci soññ bu baax a baax di soxla seen taxawaay ci bépp domaine ci bépp fànn boo xam ne noonu laxasaay daana ko taxawee ñu ngi leen ciy soññ di soññ ndawi Serigne Touba yi tamit ci seen taxawaay di soññ daayira Baye Fall beet ñëpp taxaw dal taxawaay bu am solo daal ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal jàmm ak xewal te di leen xaar yaakaar rek Pastef bu mat sëkk suñu borom dimbaliñ ci bañ àggale ko fu kawe suñ jot barke maam Cheikh Ibrahima Fall barke Cheikh Modou Fallou Fall jërë ngeen jëf.
jërëjëf Serigne Moustapha Diop Baye Fall yal na yàlla fay yaakaar naa kenn ku ci nekk dégg na loolu nga xamante ni mooy ki nga xam ne mooy Serigne Moustapha Diop Baye Fall moo joxe participation am noonu kon mbokk jullit mbokk lañ jox leen dix daje incha allahu rabbi ba mardi bi ñëw yal nañ ko fekkee te tal ko ñi julli yal na yàlla nangu seen julli tey ñi julli subaat yal na yàlla nangu seen julli ndax ki nga xamante ni mooy nangu kenn rek la mooy yàlla suñu borom subhaanahu subhaanahu wa taala mucc gaan ak xéewal barkeb Serigne Saliou jërë ngeen jëf naqis lañu bambay kaabal bari yëpp suq lañu bambay kaabal awa bambay kaamil bari yëpp suq lañu bambay kaabal man l'islam di jooy yëkkeet ba génn gàddaay ci soowu jant fépp mel ni làmbaay ca Bamba dal di ñaan ci barke bi ni Yàlla may safiihu kullu jiileen may xaadimum rasul bi fi sodaane may xaadimum rasul lu fi sodaane bala may xaadimum rasul lu fi sodaane di sëriñ Mbàkke soxna loo may xaadimu rasul du fi sodaane ay ramu xarnu be jaay ko كون أحمد عبد الله وخديم رسول الله صلى الله عليه وسلم بك برم توبة
المرسلين